acca salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi nuyu nañu leen bu baax ziyaare waat leen am mbégte ak kontaante nag jàkkaarloo waat ak yéen comme saa su nekk nu ñu koy defee ci wasaare société nee naa leen seen mbégte nag mooy suñu yite ba tax nag tey dama leen a indil émission bu bees tàq muy conseiller jeeg ji conseiller jeeg ji nag ñu commencé ko marché asalem fas yéene nag waxtaan ak sama data bi ci lépp loo xamante ne nii jeeg bëgg na koo xam to xamu ko lépp loo xamante ne nii xale bu ndaw buy doog a dugg ci sëy bëgg na koo xam nag xamu ko ma fas yéene waxtaan ci ak moom kàggu acca ma daal di koy jël mu daal nuyoo bu ko defee bañ dugg si waxtaan bi yaa nuyu naa la. maa ngi lay fay fay naa leen bu baax waa Wassare TV. yaa ngi ci jàmm. sant sunu borom. tey ñu dalal la ci suñu émission conseil yi jeeg ji. ma am ci mbégte ak kontaante lool. tey ñu fekk la marché asalem fekk ngay jaay ay dara di jaay ay rideau di jaay tamit ay nuisette. te ñu dëgmal tabaski. waa fii moom yaa ngi ci la maison du drap. ñuy yëngatu si waa wàllu tissu waaye bu tissu yi ba weesoo tam dañuy yëngatu si lu jëm si dara ak nuisette. jaraay jeeg yi ngay ñëw wala. waaw waaw macha allah jeeg ju bëgg lu baax nag moom ñi ngi fii ñëw di doxantu bu baax a baax waaw ndax ku wax tabaski wax dara ak rido wax nu waaw. yaa booy ñu gis ne jeeg yi am na ñoo xamante ne ni dañuy yendoo dara ba ngoon jot ñu daal di koy fanaanawaat. ah cam bugguma boobu bugguma boobu déedéet dara bi ngay lal guddi ak bi ngay lal bëccëg euh, dunu benn ñun na yàlla def na ni sax comme dañ ci yëngatu dañ ciy defaale comme noonu di def ay conseils yu baax parfois da ngay am benn cliente nga conseil ko surtout nouveau marié yi ñi leen di conseillé nag ñu leen di déet su ngeen ni euh, bu ngeen ñëwee dañ leen di proposé dara yi nga xamante ne moom ngay lal guddi dara weex taal trois pièces dara ak ñaari njegenaay am dara yoo xamante ni pour journée bi la couleur itam comme noonu selon sa néeg nu mel noonu décor bi noonu lay jaayee dara yi. lan moo tax guddi gi jeeg gi taamu dara bu weex. ah dara bu weex <laughs> macha allah la mu ëmb bëri. <laughs> li ñu ci la mu ëmb tuuti. bëri na bari na bari na yaa ma gën a xam. <laughs> célibataire bu toog naan ko yaa ma gën a xam. ah waaw sal marié. waale ko sax. Ah, waaw loolu hors antenne laa lay jël xam naa daal dafay teg ci conseil yu baax yi mais daal daraa moom loolu moom wax dëgg taamu nañ ko jeeg bu ne taamu nga moom guddi nga def sa dara bu weex taal waaw sëñ bi kontaan nooy neex nga boole ko sa nuisette bu nu mu tudd harmoniser sa nuisette ak say dara waa loolu moom taamu naa ko si jeeg. lépp day am ci si bi daal maanaam sa nuisette ak sa dara. waaw harmoniser ko la da ci am solo trop du caagin weex rek nga war a def sax parce que loo sentir te nuisette bii nga sentir mun nga lal beneen beneen couleur dara. jéeg ji am na ñoo xamante ne ni kalaasu Ami Jaw bi seen jëkkër yi xamuñu nuisette sër rek la ñuy fanaan. ah bugguma boobu jéeg cam bugguma boobu waaw jéeg daal taamu naa ci def sa nuisette surtout xale def sa nuisette bu bu coquette waaw mm, taamu naa ci loolu wala nga def sa deux pièces bu baax loolu daal taamu ko si jéeg. waaw waaye sër moom bugguma ko si jeek <laughs> gis nañ tamit ngay jaay li nga xamante ne nii moo di rido rido yi nan lay demee waaw rideau itam dañ ci yëngatu bu baax comme ni ni yëngatoo si daraay moom aussi comme noonu ku ne xam na ne décooru nekk dafa am solo solo noonu rideau yi noonu lan la koy euh, jaaye bu la jaayee dara boo ñu laajee conseil ñu wax la ni la couleur bi mooy ànd ak moom nga harmoniser ko ak sa dara jeeg mhm. ji ndax ñu ngi ñëw di jënd si rideau yi ndax ndax ndax genre jeeg ju ndaw jooju dañu naan euh, rido moom du du du priorité daal. ah rido mooy priorité nag ndax boo changé tabaski boo changé sa dara sa bi war nga mën a changé tam rido bi mu harmoniser ak kii bi ak euh, couleur dara bi ngay lal. Mhm. jeeg yi ñan ñoo gën a joŋe ci euh, aawo yi wala ñaareel yi wala ñetteel. aawo yi ñoo gën a joŋe. li nga ma laaj noonu ban question la aawo yi ñoo gën a jonge <laughs> kon daal aawo yi ñoo dama cee bëri ay xarit nag si ñaareel yi dama cee bari ay xarit mais ñoom itam wax dëgg ñu ngi wane seen bopp waaye aawo yi leen gën a num tudde ñetteeli moom dañuy nelaw rek. ñetteel yi ñooy nelaw ñoo si xamul taal cuuraay. ñetteeli. <laughs> yi ak ñaareel yi aawo ñooy taal cuuraay yu neex. damay faral di dégg ñi nga xamante ne ni ñoo nekk si li nga xam ne mooy néegu sëy nga gis euh, jigéen joo xamante ne ni dafay faral di tere euh, boppam borom këram lan mooy waral loolu. ah loolu moom <laughs> man xaw ma ko bugguma ko set ku ma gis nga di ko def di naan la bu ko def jigéen moom boo xasee ban may la sa borom kër mm, ngay sëyeeg moom sa yàlla rekk tax wax dëgg euh, bu la nga ko jox sa bopp. Mhm. nuiset yi te est-ce que tey su ma jëndee benn nuiset mën naa koo fanaanoo ñaari yoon ba ñetti yoon ba ñeenti yoon. ah no non non chaque jour ak nuiset bi nga war a fële sept jours la sa chaque jour ak bi nga war a fële sept jours lundi mardi mercredi jeudi vendredi ba samedi dimanche chaque jour ak couleur bi nga laaj. xanaa sept jours yi yëpp di nga jël pause bañ a sol nuiset nag sa woo doo sa sa woo tëdd. non même booy tëdd sa tey nga sol. comme nu nuisette loolu guddi dafa bokk si ñun jigéen comme bëccëg gi ni may jéene ni maquillé wu ba nekk ca dem xëy guddi tam noonu la. du caagi ni bëccëg gi da ngay kii rek nga def lu la saf bu guddee nga ñëw sangu rek tëdd ah no bugguma lool si jeeg ni ngay xëyee di maquillé wu ba mu saf chaque jour noonu la li nga santi guddi gi sol ko sol ko guddi nga tëdd. tey bu fekkee da ngay joxe conseil conseil boo xamante ne ni mooy jeeg ji nga xam ne duñu taal cuuraay ñu lal dara bu ba comme ni ma ko waxee si commencement bi bu ñuy yendoo wala ñuy fanaanoo nu set moom seen jëkkër yi waxaale ñu ko cuuraay moom seen nekk gëj na koo xeeñ boo leen doon jox conseil ban conseil nga leen di jox. ah di leen jox conseil di leen wax ni leen ni néegu sëy du dara di nga gis euh, jëkkër ak ñu nekk si benn euh, complicité boo xam ne macha allah nit ñi dañ naan sax diw de dafa liggéey diw. fekk na du loolu jigéen gi ne muy toppatoo borom këram rek moo tax borom kër bi am nu mu ko tegee ku nekk daal dama lay conseil di la tegaat ni la di la wax ni la ni del toppatoo sa borom kër taal cuuraay set jigéen moom même boo amul sax jëkkër da nga war a set set moom dafa bokk si ñun jigéen daa bëri ay ruq-ruq loolu nag dama koy conseil képp koo xam ne jeeg nga na gën a farlu si loolu taal cuuraay muy neex di gun guni néeg bi macha allah toppatoo sëñ bi. toppatoo sëñ bi kon balaa émission bee jeex ma posé waat ma laajaat ko beneen question damay faral di dégg ñi nekk ci boobu sëy naan ni ngay def ba téye sa góor xam nga ko nan ngeen di téye seen seen seen seen borom kër yi ba duñu tax keneen. ah bëri na dégg lu ma la wax complicité mooy lépp nit ki boo amee sa jëkkër complicité rek jeex na ñiir ñiir loo amul ŋaayoo amul lu la nakari nga wax ko ko moom it lu ko nakari mu wax la ko nga di ko toppatoo comme ni mu waree ndax góor bébé la boo ko toppatoo rek yaa ko moom. waaye boo ko sàgganee tam mu sàggane la waaw surtout xam xale yi dañoo gaaw a garaaw presque xale yi. <laughs> célibataire yi dégg naa dañuy jënd ay nuisette ak yooyu. ah di ko doyee lan <laughs> loolu dama lay posé waat question bi. ma yéem. jigéen. ah loolu doy na waa loolu kon manqué soog a dégg de mais loolu ah waa xam nga jamono day dox mun naa mi dafa fekk bokk si tendance yu bees yi. <laughs> ah jënd denc laa yaakaar. mën ah yàlla tere loolu moom de du ma ko conseillé benn xale bu jigéen xale bu jigéen dama naan la teel sa bopp ba jëkkër ñëw nga soog a sol di ko kawan mais far rek ah man loolu moom du ma ko conseillé benn rakk du ma ko conseillé benn xale déedéet. d'accord lan moo nekk sa kàddu gu mujj. ah di leen sant di leen gërëm si ñëw bi ngeen ñëw fii parce que c'est pas évident aussi mënoo ngeen dem feneen euh, nag. ku ne xam na événement mooy loolu xat na waaye ñu accordé leen ci lii def ko loolu du dara ñu ngi ci sant sunu borom bu baax di ñaan yàlla yàlla defal ñu tabaski bu neex tabaski jàmm ak salaam di remercier di sant client ak client complexe que salaam yëpp. ci mhm. bëgg fan la la fekk fan la la mën a fekk. ñu ngi massage lem H&M. boo ñëwee ba ci pharmacie Léopold Sédar Senghor bi rek nga taxaw foofu woote si 77 520 92 43 boo wootee rek dina la jël si teg si axe bi. loo bëgg yaay bañ tusi yeeg dara yi yëpp a ngi fi di sant nag sama borom kër bu baax moom mooy nag le PGD bu kër gi da ko fekk mu jéem moom mooy gérer lépp kii man nii rek laa ci nekk mais lépp luy dugg ak génn gi moom moo ma koy gérer waaw macha allah maa ngi koy sant bu baax nag di ko gërëm waaw. ok de acca jërë ngeen jëf yaakaar naa ne nii la ñu leen ko waxee woon yéen ñi nga xamante ne nii ay jeeg ngeen bëgg conseiller daw leen gaaw nee leen émission bu bees tàqal la lu ne nag la ñu waxtaane mën ngeen fee lu nekk loo xamante ne ni dafa jëm si ñeegu si fas yéen nañu yaatal émission bi ba ñëpp jot si jeeg gi yéen ñi nga xamante ne ni da ngeen a soog a dugg ci seen néegu sëy xamagu leen dara ci sëy bi yaakaar naa ne bu ngeen seetaane émission bi wasaare société rek dina leen gindi wan leen di jaar jërëjëf kàggu sama caméraman bi ñu joxaat ak beneen conseiller jeeg ji merci beaucoup.